di ñëw fii di dajawaat tey ak euh, population bi ci li yàlla dogal muy mbas mi nga xam ne mi ngi continuer di def ay dégâts ci biir àdduna bi yëpp te loolu li ma jàpp mooy yàlla moo ko indi muy musiba moo xamante ni daf ko wàcce ci àdduna malgré suñu gouvernement suñu président Macky Sall mu ngi xeex lépp lim man di def lépp lim man ba moo tax ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci keppaaram di liggéey ak moom dañuy taxaw di xeex pour ñoom it loolu yàlla mën nañ ci dimbale ba bu ñu sonal yenn son yi loolu moo tax ñu dellusiwaat fii tey ci biir Kaolack fas yéene saafantewaat ak population bi dimbalante ak ñoom ci li nga xam ne jàpp nañ ne mën naa am man naa wàññi yenn jafe-jafe yi ñu jëflante ko ak ñoom loolu moo ñu fi dajale waat tey jàpp naa ne li nga xam ne moom la askan wi gën a soxla tey mu ngi jëm ci naka la ñuy def ba li nga xam ne moo buñ ko defee mën nañoo sàmmanteeg li ñu docteur yi digal pour ñu moytandiku feebar bi mu jëm ci ay masque yu jëm ci mboolem jumtukaay wala matériel boo xamante ni yaakaar nañ ne war naa mën a wàññi mbas mi incha allah fas yéene nañ dugalaat ko ci biir population Kaolack alors moo tax ñu def cérémonie bu yem bii rek pour wane ne acte yii nii moom lañ fas yéene posé waat ci biir dëkk bi incha allah pour dimbalante ak askan bi dimbalante ñi nga xam ne jàpp nañ ne yeyoon nañ ko ca bu yeggee ci ñoom mën naa am dina leen dimbale wala dina leen wàññil yenn coono yi. alors loolu moo tax ñu def li pour def remise bu yem rek wane li nga xam ne moom lañ bëgg a def nii incha allah pour jëmale ko ci mboolem askan bi alors euh, matériel bi nga xam ne moom la ñu fas yéene tasaare dana jëm ci lépp li nga xam ne docteur ñi moo ñu ko digal waaye dina jëm tam ci lépp loo xam ne bu duggee ci biir askan bu néew doole wi dañ leen dimbale pour wàññi yenn coono dund yi ndax jamono biñ nekk neexul jamono bi neexul Euh, li ko indi mooy lépp li daan dox doxatul lépp li daan dem ak dikk amatul koom-koom yi ni mu daan doxee doxeetu ko donc képp koo xam ne jàpp naa ne yor nga fukk rek war ngaa mën a fell même bu dee juróom yi jëflante ko jaami yàlla yi alors loolu moo tax ñu def lii tey euh, di ñaan yàlla yàlla dimbale ñu aussi dimbale Kaolack parce que Kaolack bokk na ci dëkk yi nga xam ne tey wax dëgg yàlla mbas mi xaw na fi am solo bëri parce que booy suivre da ngay gis ne chaque jour te loolu dañoo war a taxaw ñun doomi Kaolack yi pour xeex ko kenn duñu ko xeexal ñun ñoo koy xeexal suñu bopp ñun ñoo war a taxaw boole suñu doole yi gëm ne wattu sa bopp ci jaamu yàlla la bokk